honnête yàqul dara ci li ngay def honnête teewlu man li ngay def mais Sénégal am na bête noire mooy Algérie ak Côte d'Ivoire ñu bàyyi xel bu baax na fulla ak fayda dafa des ci terrain bi muy xale yi boo xoolee seen fulla ak seen fayda dafa des pourquoi ñoom ku ñu dominer man laa dominer bu dee équipe mag nga ñu mën laa dominer quatre-vingt-dix minutes te duñu dugal bii te pourquoi bu dee équipe bu xaw a mag nga rek boo leen dominer lu tolloog ci euh, euh, euh, vingt minutes dugal bi wala quarante minutes ndax booy door doo doo gis sa erreur mais ñu ne Cameroun bii biñ jël li ma gëm ba gëm ne bu doon Cameroun moo am ñoom ñu ko jël pourquoi pas ñu ne fii ci senegal tey ñu ne ak Côte am na nag lu dijë Drogba waxoon na bàyyi leen xel Sénégal Côte d'Ivoire fu ñu daje Côte d'Ivoire mooy dóor tey wax boobu day nekk na dëgg mais nag lii du dara takkat jaj yi ñu def fulla ak fayda ci équipe nationale bu Sénégal war nañoo liggéey ci bal arrêté ñaare dañ ci am problème bu baax war nañoo liggéey ci bu nekk ci taa forme taa forme demee nañu ñu bàyyi pression bay def yenn coup franc yi di ëmb rek di àcc àccal war nañoo liggéey tamit ci nan ngay défendre soo bëggee défendre boo xam ne yow la neex nga accepté ko daa am nu ñu koy defee ndax su boobaa ma nga ma nga dugal sa zone sa ñetti défenseur maanaam wala cinq défenseur daal di dugal ñetti milieu terrain yi ñu mel ne ci milieu terrain central bi mu des ñaari jours ñaari joueurs yooyu ñooy pes ci défenseurs yi bu dee défenseurs bu ñu fànturee dañu dóor bu ñu bu duggee ci milieu terrain bi rek eh, bu dee ñett ñi newoon ci